tey soo demee si parent yi waxul nañ la bu tas sa sëy ñun ku ñu mayee dañoo bëgg mu dee yaa tas sa sëy desal ak sa bopp du nga rek wan nga ne am nga xaalis mën nga lu luweel sa bopp appartement des fa ñun suñu yoon ñu la war a accompagner ñoom buñ la buñ la buñu buñ la délaissé ñoom dañoo revenir mhm. te délaissé wuñ la par méchanceté mhm. mais dañu wax ne suñu réalité socioculturelle mhm. suñ la mayee nga sëy da nga faa war a dee mooy sëy fa daal sëy fa waaw sëy fa waaw sëy lépp ah ba fi may wax ak yow nii amaguma solution donc damay wax ne su ma mën a ko léegi ne su ma paree émission rek dinaa tàppe si porte grand cœur yi mhm. comme ça ñu héberger la xam nga suturaal la denc la ba keroog ñuy pare Ah, li ñuy def nous avons de grande dames de valeur ñun euh, euh, marche blanche des femmes mhm. dañu def comité d'honneur mhm. comité d'honneur yooyu dañu jël des femmes de référence mhm. ay mag ñu jigéen ñoo xam ne am na am na ñu ne absolument ñu ne leen kaay leen ngeen gunge ñu su fu ñu jaaxlee ñu ne leen aloo ngeen ñëw taxaw jàppale ñu tette ñu gunge ñu ñu am ay sisiyaat am jigéen ñëpp dañu sawar mais tey ñu maa yow sisiyaatal nga man damay def coach de vie. tout à fait ñun dañuy dem ba dootuñu am vie. voilà on fait des causeries et dañuy sonn dañuy def ay waxtaan mais doyul. doyul état daf ñu war a jàppale. Mhm. organisme yi dañu war a yaatal. jàppale ñëpp. mais su rawatina état dañu war a jàppale ñëpp ñoo xam ne ñu ngi yëngu man rawatina bàjjanu gox yi rawatina animatrice yi def euh, émission sociale yow ak euh, kii bàjjan euh, Ngoone yéen a waroon bokk plateau bi macha allah mais malheureusement dafa am fu mu demoon panel mu ñibbisi après mu xaw a tawat dëgg la ce qui fait que elle n'a pas pu venir coono yi tout temps moom tout temps moom mi ngi entre les di dem pour rien que jàppale nit ñi ci à ses frais dépend nag lépp lu mu def moom moo ko defal boppam donc kooku dañ koy ñaanal gudd fan ko ànd ak wér mu wér ak jàmm ba ñëw fekk suñu fii incha allah mhm. Badiane Ngoné Sarr mhm. <clears throat> c'est une référence de femme tout à fait mhm. comme toutes les badianes du Sénégal dama am ay badianu gaynde yu mel ni ñu ngi koy wax Adja euh, Khady Ndiaye ñu mel ni la président nationale Ndeye Fatou Diallo dafa feebar ba son dama ne badian yi man moo yoruñu sama salaire aw ma yenn relation d'affinité de fréquentation. mais da nga yëg seen liggéey mais j'ai observé. j'ai vu mhm. seen liggéey ma ne nañ leen revaloriser. Mhm. mais revaloriser leen du dem assemblée ne dinañ leen jàppale ay vingt cinq mille par no nañ leen jël duggal leen ci poste de santé di leen faj nañ leen jël attaché leen auprès des délégués de quartier ñuy def ay jox leen le maximum d' activité mhm. gis nga AJS mu ngi def liggéey bu am solo mhm. xoolal dafa doy marina mhm. du ñu nelaw suba ngoon guddi bëccëg mu ngi daw di lijjanti di xool xam nga man man je man je ne de citer mais nous avons aussi des hommes qui sont dans la masculinité positive tout à fait du bon travail et du beau travail les accompagner qui sont là te mi eh, ah, ku mel ne Marina eh, pourquoi muy ñu nga war ñu ak moom ah te xokkata lañ ko xoola xoola man su ma xoolee Elias dans les activités sama yaram day daw mhm. am nañu ñu mel noonu un peu partout mhm. damay wax ne la dernière fois Elias ñoom Diomaye ah, ñoom Amadou Sarr ñoom tout le monde tout le mhm. monde dañ koy cité ba suba mais xam nga su nekkee benn benn ñebbe ci cin dañ cay weet ñoom lañ ñuy jàppale yëpp dañoo mel ne benn ñebbe ci cin ndax bariwuñu patriarcat mhm. dafa dominer et dominer pos euh, pas positivement mhm. mais négativement patriarcat mooy mhm. góor rek ci kaw jigéen ci suuf à force de piétiner yow sa bopp li ngay piétiner dalay gasal kàmm nga ne pëtax ci biir dugg fa nga jaaxle c'est malheureux et que loolu mais loolu yëpp nag day revenir ci suñu thème jigéen contre jigéen contre jigéen tey moom góor ñi duñu leen laal non jigéen contre jigéen ñu ma lu tax ñuy wujje te ku nekk mën a am cëram lu tax yow ñu maa yow soo yoree émission par force il faut mu am émission. Mm-hmm. lu tax émission heure heure bi ngay def ñu ne mooy heure d'audience man Aminata Diallo dama war a am heure d'audience comme yow. c'est malheureux te yow yaay am audience sa audience bopp yow yaa koy créer sa bopp. absolument mm-hmm. soo nekkee ministre ñeneen ñi ne ñun lu tax kii nekk ministre. Mm-hmm. soo nekkee député lu tax soo nekkee adjointe dama la ne man balaa veille de ma nomination. jigéen ñi taxaw rek ne kii du fi nekkee adjointe. man je n'ai rien demandé. lu yàlla dogal ci nit sax da cee mën dara demandé c'est les alliés qui m'ont choisi mhm. ak le consentement de l'honorable député bu nekk nit ku baax nit ku yaru nit ku am colère mhm. parce que mënoon na ne ndaw si da doon face à face ak man di xëccoo may xëccoo mhm. mais moo ma jël si na ma kaa ñu ànd liggéey ma ne ko damaa bawoon politique parce que dafa metti ak liggéey social bi may def parce que man je priorise le développement communautaire mm-hmm. man c'est la communauté qui m'intéresse mm-hmm. soo gisee ñuy xëccu def politique c'est pour être dans les instances de décision pour faire porter nos voix mais les femmes ne le voient pas comme ça ñoo lay xoqatal ñoo lay jow ñoo lay gaarawaale ñoo lay sànni xeer ñooy dem euh, euh, bu max góor ñi sa kaw peut-être longueur de temps tu vis des frustrations yoo xamante ne euh, amul bëgg naa ñu attirer dama naan peut-être ñoom dañoo ils n'ont parce que ñoom bu ñu yaakaar ne peut boo nekkee ci instance le mhm. profit bi nga fay am mhm. wala le salaire bi nga fay am wala les avantages yi nga fay am mhm. loolu donc moo tax ngay dem alors que les dames son devant pour porter un combat te combat boobu nag il faut le dames comme pour les épauler absolument xam nga tey ji tey ah rajo bi ma ñëw ne dafi wax Safina euh, Safina euh, daf ma neex que nga ñëw ma ñëw gis ne xale yu góor ñu ngi daw di def seen kéemte kàttan pour defaral la ba mu baax mhm. nga am émission bu baax mhm. c'est cet esprit la euh, là mhm. que nous devons nourrir à tout les niveaux nos entre femmes mais man ce qui ma choque mooy Euh, damay nekk euh, tey présentement nii maa ngi nekk si émission rajo bi toog hmm. yi am na yeneen yeneen rajo yoo xamante ne invité nañu sànq dafa am ko ma woo ne ma ah gis naa sa affiche bi jigéen bi nga wuy ji man góor maa la woo <laughs> xoolal déjà est-ce que nga mais mu ne ma jigéen bi nga wuy ji sama doom la dégg nga mu na ma benn jigéen <laughs> moo ma jox sa affiche mm-hmm. ne ma gis nga de woo nañ ko mais jigéen lay wuy ji loolu du violence loolu du jaxasee diggante nit ak nit. tout c'est juste pour vous dire. c'est malheureux absolument c'est ce qu'on vit quotidiennement. partout mm-hmm. c'est partout dañuy xëccoo ay poste di ko xeexante entre jigéen. Mm-hmm. di ci defante ay musiba dama ne du ñun de. Mm-hmm. dañu ko mooñaale. waaw ah, léegi moo nag moo yare naka la ñuy def yaabooy ba loolu ñu mën koo mën a éradiquer beaucoup d'activités c'est à travers une bonne éducation l'éducation est la base de tout surtout ñun parents je parle plus aux jeunes yi nga xam ne ñu ngi war a jur ñu ngi war a yar mhm. parce que damay wax ne garab bu demee ba mag ci kaw mhm. pour nga damm ko da nga koy damm am problème waaw boo ko jubbante moom da mais nag mais la base dama ne ñun est-ce que duñu def camp d'enfant jër góor ñeeg jigéen ñi def loo leen camp mhm. ay camp yu bëri ku juddu rek soo commencé jàng wax rek ñu jël la yóbbu la ci camp rek di leen wax ne jàppante leen solidarisez vous affaire bi du compétence affaire bi du compétence entre bi du wujje da ngeen a bokk affaire bi du rivalité da ngeen a bokk. ñu leen koy inculquer dès le bas âge même dans le cadre du travail. de mhm. tous les jours. suñu promotionné jigéen nga gis ay frustration plus yeneen jigéen ñi que góor ñi nañu waxante dëgg. Mhm. mais loolu lu koy waral ci kër yi la déparé. penc moo amatul bàjjan moo amatul maam moo amatul waxtaan yooyu moo amatul mhm. lan mooy ñu naan bàjjanay baay. lan moo tax maa ngi félicité. ministre bi créé bàjjanu gox. parce que bàjjan mooy baay boobu le rôle que jouaient les bàjjan avant li Mati Thiam doon wax ne maa bëri bàjjan mhm. fu ma toog du ma fa bouger parce que xam na lu tax c'est c'est c'est euh, des fonctions mhm. c'est des rôles yoo xamante ne de médiation sociale de renfermement de relation di la xamal foo bokk mhm. di la wax ne bu leen wujje bu leen xeex bu leen sànnante bokk leen seen yaay yi bu ñuy wujje bu leen ci xool yéen ñëw leen autour de mois su ngeen amee ay problème ñëw leen su ngeen waree waxtaan ñu yéen a bokk seen géño yéen bokk seen délai di leen rappeler tout le temps que c'est pas une répercuté wu les niveaux. tout à fait benn jigéen bu nekk assemblée ca partem mhm. jigéen ña des ñëpp ñu demul. suñ ko ñaanalul dee mbaa dof pour jël place am. c'est malheureux dañuy bëgg tout le temps muy faqastalu ci mission bi muy am. pour ñu am lu ñu pour reetaan et c'est malheureux. malheureusement c'est pas les li jigéen ñi di def yëpp c'est c'est la construction sociale, sociale qui nous dévouée nous aux qui nous pousse à nous rabaisser, mmh. qui nous pousse à être tout temps au second plan, au second niveau. Et ça commence à changer. Lolo, ça me la mal. Ah, avec Aminata Diallo, il faut que ça change. il faut que ça <laughs> change parce que vraiment, il y a un petit dor, il a un war. Mais Lolo, doyul. wax bi ak def bi doyul mhm. donc lan ngay ñaax euh, mhm. way jur bi nga xamante ne c'est une jeune maman mhm. mi ngi door am deux à trois enfants amul jotu doomam gaa yàlla dafa def ni la situation a changé le monde évolue yaay day liggéey papa day liggéey mais boo ñibbisee si kër gi lan moo war a nekk sa attitude par rapport ak say doom yaa boy mais xam nga ñu ma lu bëri xale yaa ngi koy souffrir parce que yaay yi amatuñu jotu kër yi xam nga dëkku appartement nga bàyyi sa jànq sa jànq mun na def lu ne sa doom moo tax caméra cachée yi am léegi dafay découvrir loolu bari nit ñi parce que mun nañu violer sa doom mun nañ ko eh, dóor mun nañ ko gaañ mun na ñàkk lekk bu baax il faut communiquer man ce que je conseille aux parents aux jeune parent c'est de beaucoup communiquer say doom nañ la ñeme il faut leur donner du temps mais en semaine tu travailles ton mari travaille tu reviens x heure soo defaree néeg bi ba mu rafet nga ne xale bi bi fu dugg de li sama yaay Astu Ngom doon ma wax mhm. xale yi ma ndeysaan ca ginnaaw raay ma koy nuyuwaale mhm. day wax naan xale yi de euh, dañuy defar seen néeg ba mu rafet dàq seen doom yi fat borom kër yi léegi doom bi soo ko dàqee mu dem ci mbedd bi day uti feneen refuge. non même pas uti feneen refuge mais yaa ngi koy jëñax ci musiba. mooy refuge beneen bu muy am mu mm-hmm. am nijaay tonton say-say. Mm-hmm. mu am maam say-say mu am dëkkandoo say-say. di naxante ak moom même xale yu ndaw yu góor ñi. Mm-hmm. dañ leen di def ay borom ñaari tur parce que ci dëkkandoo taloo sa doom ñu jël fat ci néeg di ko xaritoo man de ku ma gisee sa góor nga fab benn façon xale bu ndaw rek. man a j'attire mon attention. oto sax su ma ci duggee jigéen ñi ñii di dugg indi ma uufa la sa doom bu jigéen maa koy bu góor moom góor mën na ko c'est ça kooku moom psychologiquement man tax ma toog yàbooy lan ngay tàggoo suñu temps jeex na tàkk oh, te mu euh, góor nañoo dugg tuuti ci circulation bi mais malheureusement tu vas revenir incha allah absolument non ça me fera plaisir de si cette rajo là di leen ñaanal ngeen dem ba am ay chaine de télévision am beaucoup de moyens amiin euh, li may tàggoo mooy Ah, sant samay waajur bu baax. alhamdulilah sant sama famille bu baax a baax. parce que dañ may support. damay wax sama première fan sama yaay la. macha allah ma koy nuyu di ko sant mais frères mais sœurs yu ma bokkal yaay bokkal papa ñun suñu kër. dañu mel ne mburu ak soow tey sama yaay sa meilleure amie c'est sa co-épouse ñooy waxtaan ñooy wéttalante le papa est décédé mu ne kenn du génn ci kër gi tout le monde se retrouve à la grande famille ñun ku ci nekk sa kër sax ñooñoo jara invité absolument yaay boo yooyoo jara invité fi ñu revenir démb absolument absolument suñu yaay yu njëkk yi dama mm. joxe exemple sama kër mais ça se passe dans beaucoup de familles les anciennes familles wujj mm-hmm. yi dañuy xaritoo aawa bi la ñëpp di wax yaay ñeneen ñi doo fii ak ku xam nga xaritoo même suñu merantee doom yi duñ ko yëg yarandoo man foofu laay woo xale yi et que nous sommes dans le milieu professionnel c'est vrai que euh, ça nous avons besoin de ça parce que nous vivons des difficultés mhm. vraiment financières des difficultés de tout bord yoo xamante ne daf ñuy pousser à ñu ñëpp ñu bëgg liggéey mhm. mais suñu wàccee nañu jox temps suñu doom yi xool seen njàng yi laaj leen luy xew école mhm. parce que milieu scolaire violence yi bëri na fa jafe-jafe bëri na à la maison violence bëri na problème yi bëri na dans la maison violence bëri na problème yi bëri na kon ñun jigéen ak jigéen nañu bëggante ñu nekkante nawle ñu bekkee góor bu ñu ne sama wujju la nañ ne dañoo bokk ku góor ki suñu bokkee baay ñu ne doomu baay dafa neex suñu bokkee liggéey nañu ne on doit se solidariser fémininement pour pour prouver que ce que nous demandons vraiment c'est cette plus de responsabilité là ça ne doit pas être du néant mais suñu responsabiliser jigéen di ko regretter mhm. ça fait mal communiquons mhm. aimons-nous vivre aimons-nous vivantes mhm. c'est très important mais c'est pas nous c'est des réalités socioculturelles. C'est qu'on doit travailler. Sociale. faire le maximum de sensibilisation, mm -hmm. faire le maximum d'activités, se rapprocher, dénoncer, osons dénoncer. Mm-hmm. C'est le mot de la fin. Et vous remercier. Numa, euh, ma leen di remercier rajo bi responsable di leen remercier yow. Mm-hmm. di wax ne bravo à cette émission là et que ñun duñu ménager aucun effort. à répondre aux invitations. parce que di nuyu ah, man Aminta Diallo waa ginnaaw raay encore une fois. di nuyu sama association actrice culturelle ensemble. Mhm. di nekk jigéen des métiers de la culture de tous les métiers de la culture. te que yombagul nag. beneen yoon bu fi dalalee on parle là que de la culture incha allah taala merci à tout le monde encore une fois yàlla nañu yendu ak jàmm. macha euh, allah sunu yaay booy woon moom la ñuy dalal fii ci Safina FM 98 point 2 ci suñu émission Safi ah ñu waxtaanee li nga xamante ne. Euh, lëmbee na dëkk bi maanaam euh, di violence boo xamante ni jigéen moo ko jël teg ko moroom jigéenam lim ci faram fàccee macha allah am na solo ci loolu ñu koy ñaanal gudd fan ko ànd ak wér ndax c'est une femme euh, battante c'est une dame de fer c'est une dame sociale ma observé ko xool ko bu baax ci kuréel yi ñu bokk lu mel ne collectif dafa doy gis liggéeyam gis taxawaayam kon kooku bu ko dalalee fii tey mu wax nii mu waxee macha allah dañuy wax rek chapeau euh, bravo à elle et continuation mbokk auditeurs yi seetaan Safina ci Safina TV des et des sens Safina TV macha allah ñu leen jox jig daje euh, semaine prochaine avec beneen invité incha allahu taala de côté de la baie vitrée ñu remercier suñuy technicien di nuyu kilifa kër gi di Thierno Hamidou Bane mook njaboot gi yëpp macha allah di leen ñaanal gudd fan ko ànd ak wér léegi-léegi incha allah rédaction bi dina ñëw ci njiitalu Cheikh Bamba Kane assisté par euh, Amadou Sarr dina ñëw defal leen grande édition bi ci Safina FM 98 point 2 Safina TV incha